waaw maa lay fay jàmbaar. tey ñu ngi am mbégte tey gis na fii sa teewaay fii ci biir arène nationale parce que ku mel ni yow da ngay taaral wax naa ko sànq Balla gay lu mel ni làmb parce que gis nga gis nañu bi nga ñëwee làmb jëpp jóg di la tàcc tey bi nga gisee loolu ban yëg nga am ci biir waaw kontaan na rek chaque fois moom la ma Babacar di wax sànq yàlla dogal na saa yu duggee fii rek mu am nu mu demee loolu yëpp day wane ne làmb daf ñoo namm mais nag di wax ñoo leen raw vraiment di ci kontaan. suñu ñew fi yu bari waral ko muy ibrahim bu deug lamb yi suñu wóllare di suñu dom nday ñu parrainé fii ñu ñu tuddee fii combat Papa saw tudé fi tamit mita de jeunesse ndaw parce yi di ci bëre mo tax sama téway fi tay yu bari ko waral du gulet kenn waru ma fi gisal mu lay bet way tay bi nga dugg ci ci biir arena nationale bi gis ni mu mel ak ni mu fessé tay ci lan nga yëg ak ci sa ban bis la lay fatali tay kontaan rek kontaan sante yalla parce que ku nekk li lay ñaan ibrahim tay bi moy entraînement ci lamb tey bu ñëwoon mu demee neneen mën na découragé mais alhamdulilah ba wuy nañ ko mbëri mobilisé xam nga dina ko gën a encouragé daal xam nga di ñaan yàlla yàlla gën koo kàttanal ba yéene mu am ci làmb ji mook promoteur yëpp yàlla yombal len ko incha allah. am na xale yoo xamante ni boo waxee ñu ne la Modou Lo mooy suñu idole tey xale yooyu yëpp bëgg a ay champion ñii ñu ne ay Balla Gaye mooy seen idole tey boo amoon kàddu yooyu wax xale yooyu espoir yi lan nga leen waaw di leen wax comme làmb la ku nek wax lamb ne sport nit damay wax ak lu meun doon boko beugé dem ci ba jeex dem ci sa kem katan lamb mom li tax ñu koy wax moy entraîner lu ko père Birame Ndiaye di ko waxee chaque fois rek di waxee chaque fois mbeur dafa wara a entraîner boobu kongu nga xam ni amul préparé da ngay paré dal bu dee woon làmb semaine wala wéx sax da ngay paré mbeur non la wara def ba tax na di leen soñar rek nañu gëna fonk entraînement yi am fonk sen encadrement

ak modulo. Inshallah. incha allahu taala. yàlla dugal ñu si ak jàmm. Lol sa premier sortie lay doon fi ci arène. Inshallah allah bu Amene yéen ñaar ñëpp kenn mosagu ci fi de. Wa non yalla daf lolo. des fois doo toog ba mu yag nga ñew dox ci biir enceinte bi xol ba xam gannus gi lan la. fu ñu nekk ci géej gi dafa dis comme fi.